بسم الله الرحمن الرحيم كان وأخواتها كان أكي بوكم مانام أي فعلي غا خمني dañu niroog kaana jëf di rafaali sif dasab xabar mooy yii muy bëggalim kaana nag mooy njiit li moom lañu def ummul baab li ñu defee inna ummul baab wa li kulli ummin xususiyatun yaa ju ne dafa am lu mu jagoo la tax ñu di ko tudde boroom kër gi waxu wa min xususiyati kaana dana ci lim ay yëf ci biir mooy ni jagoona moom dong moo ci jagoo léeg-léeg ñu xadaf lisibam bàyyi fa xabaram léeg ñu xabar xadaf xabaram bàyyi fa lisibam léeg ñu xabar ñu xadaf euh, genn wàllam nuun ga la ko des jë di jëf léeg-léeg itam ñu xaraf ko moom ci boppam dégg nga leneen di ko remplacer ni ki ma tasarufaat yu bare yooyu nga xam ni beneen feel du ko duñ ko ko ci def kaanaa ko jago dana ci tudd ay yëf ci biir bunt bi nag ci xasoo si yaat loolu mooy tax ñu naan buntu kaana innaa tam bokk na ca xasoo si yaatam yoo tax ñu def ko ndey bunt ba loo xaanimul xatal daraab tudd na ko nee na ah, li yastabina fadluha fi daatiha ah, wala mu taxtas bi maamulaatiha li yastabina fadluha fi daatiha inna nee moom moo ci jagoo maamuli xabar ah, maanaa aywa mubt lisimu inna daal xabaru inna rek moo jagoo ju di ca def laam te anna ko def layta duñu ko ko defal kenn duñu ko inna bil kasrati ummul ahrufi moom la waxoon ne mooy maanaam ndey bunt moo tax mu ni laam bi ma ngi féete woo xabaru inna xabaru inna daal moom doo nga ci am laam gi tarfau day rafaa kaana al isman mu nekk di ismam xaal la kon xaala kawnihi isman li kaana wal xabar xabar tansibuhu dana ko nasab dégg ñoo su fekkee dangaa nasab xabara waaye nag da nga koy sukkoo ndax way pëy bi mu nekk soo ko nasabee kon listixaal la kon damiru tansibuhu moo tax tansibuhu kii mu nekk ci baabu listixaal soo ko rafaat nag wàññiwul dara muy mubtada ala kulli xaalin dafa ni kaana day rafaa lisim di nasab xabar misaalam kaana sayidan umaru mu daal di def xabar ji ci diggante bi ndax dana la di la xamal ni xabaru kaana mën na digge diggante kaana ak lisim ji mën na ko sax dawlu ka kaana sayyidan umaru kaana umaru sayyidan loolu nag kaana jagoowu ko mook bokk yee ko bokk moo tax mu ni ka kaana walla baata adxa asbaxa amsa wa saara laysa barixa fati'a wam fakk nee zalla mubtada la ak yi mu ci ataf a ànd ak xadful aatif dindi xarafu atafu de kon danaan zalla muy mubtada wa baata wa adxa wa asbaxa ba mu jeex yooyu ka kaana muy seen xabar comme kaana lañ ci rafaali sim nasab xabar dégg nga seeni maanaa nag zalla yendoo naa def bi maanaa eh, maanaam xabar ja boo ne zalla qaa'iman kon da nga jublu ni zalla zaydun qaa'iman maanaam ittasafa zaydun bil qiyaami muddata nahaar loo soo ne baata zaydun qaa'iman da nga ni ittasafa zaydun bil qiyaami fi leyl adxaa noonu ittasafa fihi bi duxaa asbaxa ittasafa bihi bi subx amsaa yafcalu kaza maanaam ittasafa bi kaza fi lmasaay wa saara moom maanaahu taxawulu min xaalin ilaa xaal saara mujj na def nangam خامني جكيول وان وو ملو دا موجي موي تحول من صفة إلى صفة من حال إلى حال ليس معناه النفي المطلق ها بفكيني وعند التقييد بزمن النك فبحسب ليس النفي المطلق لا يجري سواء ليس سيد قائم قائما معناه في من تحول لن كمنا ديغدا لودل سوكو تنكي نك سي جامونو فبحسب التقييد سواء ليس سيد قائما امسي ليس كون ديم بلا داق ليس سيدهم قائما غدا نون باتاي من نا نيك واي سوني ليس سيدهم قائما لغي دون لن كو مانا يال موم لاني ومعناه النفي الحال وعند التقييد بزمن فبحسبه آه زال نيكي نونو برح اك فتئ اك انفك يوي يد ньо бок мана рек соне мазала wala ma bariha ma fatia mana continue na diko def def ga dayut mooy ma zaala qaaiman maanaa mu ngi continuer taxaw ma barixa ma fati a noonu ak man fàkk séet baanaa ñoo ko bokk rek wa hadi l arbaa yent yi la nga mooy zaala ak barixa ak fati ak im fakk mutbaatun lu ñuy tofal la ñoom li shabihi nafyin ci lu mel ni dàq aw nafyin wala dàq ci boppam lu mel ni dàq moo nahyu dégg wahaadil arbaa bala ñoo jëf-jëfi kaanaaki bokkam da ngay day ànd ak arafu dàq ma zaala ak ma bariha ak ma fatia wala man faq suñu dooree doonee mudaariu ba tey mën na ànd nga ni laa yazaalu wala yazaaluuna muxtalifiina dégg nga laa taftaw taftaw dégg nga laa tanfak wala mu ànd ak nahyu laa tasal bul dañ qaaiman laa tabrax moom la ni yii ñeent rek seen sartu jëf-jëfi kaana mooy nañu topp ci dàq mbaalu niroog dàq ni ki nahyu su ko defee itam nag zaala ci boppam nag am na yetti zaala yoo xam ne benn euh, taxu ñaar yi taxu ñu nu wax zaala yazulu bi maanaa toxu na taxawala لكزالة الشمس وكفين تام لا لازم لا أم زال يزيل فعل تام لا وهي متعدد لدي مف... أم مفعول زال ضأنه من معزه معنى سيبارنا أي خرم في أي بين كوكو متعدلة زال ضأنهم يزيل موي مدارهم فيقال زل ضأنك من معزك وكو فعل بوكو kon zaala yazaalu nag moonu tax di wax kooku mooy naaqis bi moom moo day li kaanay def lay def waaye nag sart ba na ko dàq jiitu wala lu ñu roog dàq bu fekkee ni naf yoo ko dàq ni ki wala yazaaluuna muxtalifin su fekkee sibhu nafi la ni ki nahyu shaacir qaala shaaciru صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين ومثل كان داما مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهم وكان كان وداما داما آه، مسبوقا برمومي لنجيت بما المصدرية الظرفية داما شكو مصدرية ما مصدرية الظرفية جيتو ما داما mislu kaana comme kaana lay kon kon naan daama mubtada wa daama ñu ne ah xaala kawnihi masbuqan bi ma ñu ne ah nga ni kooku mislu kaana la ci jëf ki maa daama zaydun qaa'iman ma daama al abu xayyan dégg nga masdariya zarfiya la maanaam maami xarfu masdar masdariya la moog daama dañu koy taawil am masdar maanaam zarfiya gi nag moom bokkul ci taawil gi ndaxam day fekk bi ñu ko tawilee am masdar masdar moomu dañu fekk fu zaraf waroon a nekk ñu placé ko fa ni nga xamee ni masdar danañ ko remplacer zaraf lu bare bare bare lu dëgg euh, ni ki aati joxeel dirhaman dërëm aati al muxtaaja dirhaman mool bu njëkk bala xasaf rek aati joxeel dirhaman maa dum te yaa ngi sax musiban di aji am alal aji daj maanaam waaji dan maa dumta ay muddatu dawaamika waajiban muddatu ji nag mooy kooku du taawil bi dawaam bi daal maa ak daama ñoo doon dawaam amaa muddatu bi nu koy nattaleel pour nga xam ni ci jamono lañu ko sarfu samaan nga koy def rek danga naan au lieu nga ni man euh, du ma ko def abadan muy samaan nga ni du ko def féeg nanga ma ngi xew muddatu loolu ci indi mudda waaje euh, zarf yéegi kat maa zaraf si kat maa ak daama ñu boole rek mu nekk maanaam dawaam dawaam bi nag ñu di ko teg ci palaasu jamono moo tax ñu naan muddatu dawaamika qaa'ima maanaa zaraf zaraf zaraf euh, zamaan gi daal moom bokkul ci taawil mi daal hmm. boo ko defee taawilee masdar masdar moom da koy def ci palaasu sa kile niki ñu naan intadartuka xalba naaqa seet nga xalba masdar la ñu ko remplacé ظرف زمان قل ينغنكو انتظرتك زمنا طويلا غنكو انتظرتك حلب ناقة كون مصدر دنانيكو بلاس ظرف لو باري اما ظرف زمان نك موتا باري دنانكو تشكنم ايوا waaye nag remplacé m zarfu makaan nag néew na ba tey danañu ko wax nga ne مكانا قريبا من makaanan nga ni jalastu qurba qurba dafa remplacer verbe nasab nasabam googu nasabu zarfiya la te masdar loolu moo tax maadaama it biñ ko tawilee masdar noonu ñu di ko def ci place zarfu zaman nax yoone tudde ko ma al masdariya zarfiya dëgg xam ni waxunu maam yi dàq yem ca wa gayru maadin qad amila إن كان غير الماض منه استعمل نانا وغير ماض لدل ماض تفعل يوي قد عمل دنا دف جف جي رفع لسم نسب خبر مثله برموم يمك ماض ما ci loolu da nga naan kaana zaydun qaa yakunu zaydun qaayiman ni ngay waxe kaana zaydun qaayiman wala sax lu dul maadi ma lamarit ca la ni ki kun qaayiman waaye nag loolu ah in kaana su nekkee xayrul maadi leneen lu dul maat ustumila ñu jëfandikoo ko minhu ci fi'l ba loolu da ko wax ngir di la xamal ni euh, bul defee ni nag yëpp mën na doon mutasarrif dégg nga yenn yi du doon mutasarrif de dégg nga ndax wa haadihi l afaalu fi tasarruf ala thalathati aqsaamin maa laa yatasarrafu bi xaalin dafa am wa huwa laysa ittifaaqan wa maa daama ala al asax yooyu yaar duñu tasarruf kon ñoom jaamit lañ ci seen wàll amaa lay sa kooku ñëpp ci d'accord maa daamaat li gën a wér noonu rek lay mel jaamit la foofu du doñ ca def yaddoom ci wax ja gën a wér yi ci des nag am na ci buy maa euh, yatasarrafu tasarrufa naaqisan ni ki yent yii nga xam ni dàq mooy seen sartu jëf wala lu niroog dàq maa zaala maa daama maa maa fati a maa barixa yooyu seen danañu mutas danañu def tasrif waaye gu manqué la ndax lamar ak masdar duñu ko am waaye danañ am maadi danañu am mudaari danañu am ismu faay ñoom yant yooyu seen maadi ma zaala qaa'iman seen mudaari wala yazaaluuna muxtalifiina seen ismu faa'il niki gayru munfakin asiira hawaa kullu waanin laysa yactabiru jital munfakin mooy ismu faa'ilu infakka neki ما ما زلت ما زلت زائلا أحبك حتى يغمض العين مغمض زالت زائلا اسم الله نلقى آه، أيوة سين اسم فاعل بوك seen mudaari seen maab yooyu moom am na boobu dana ko tasarruf waaye nag du tasarruf ba am lamar nag masdar kon yooyu yant yatasar tatasarrafu tasarrufan naaqisan wal baaqi yatasarrafu tasarrufan kaamilan ni naxu kaana wa yakunu wa kun wala masdar sax kaana da nga naan kaana zaydun qaa'iman yakunu zaydun qaa'iman kun qaa'iman masdar ma sax bi bazlin وحلم زاد في قومه الفتى ببذل وحلم زاد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير لم دي جم غنيل ولا عليك عسير لجم كي خسر وخ بيتي تيوي دنك كوري وعي عسير نجي يسير wa ko sag nekk iyaahu moom iyaahu mooy xabaru kaw kaw kawnu masdar la kaaf gii mu laaf nag li kawnu yi li si ma tax mu laaf ko waaye li kawnu di masdar moo tax mu laaf ko waaye mooy li mu kaana ji de nu masdaru kaana kaaf googu moo waroon doon li si mam waaye comme ab masdar la rek ah dafa ko laaf du dëgg ndax masdar la bu jotee ci amilam da koy faf laaf ndax lisim la moom ci boppam wa ko iyaahu nag nasab gi ñu ko damiru nasb la xam nga mu li muy xabaru kawnu moo tax kooku kon kaana yatasarrafu tasarrufan kaamilan dégg nga loolu la junj ni in kaana su nekkee xayrul maadi la dul maad ma ñu jëfandikoo ko ca nga ne ah ndeke dafa am yoo xam ne maad ma rek lañ cey jëfandikoo loolu lay loola nag moo di laysa ittifaqan wala daama alal sax yent yi ci def danañu tasarruf waaye tasarruf ga sottiwul ndax duñu am lamar duñu am masdar yi ci des ñooy yi soppandiku tasarruf mat sëkk wa fi jamiiha tawassut alxabar ajiz wa kullun sabqahu daama xadar kadaaka sabqu xabarin manaafiya fa ji biha matluwatan la taaliya ku ajis daganalal tawassutal xabari digg xabar digganteel eh, fiil jaag lisim ja Euh, fii jamiiha ci seen mboole yooyu yëpp xabar jani ci diggante bi dagan na su la nexee ni kaana qaaiman zaydun maa zaala qaaiman zaydun ba ñu jeex loolu mën nga ko wax walla waaqifan amrun ba ñu jeex tawasut gi moom mën na nekk xabar ji dikk ci digg bi wa kullun ku ne ci naxwi yoone yëpp xadara tere na manaa sabqahu dawlu xabar jumu dawlu baatu daama kooku moom ah tere nañu ko du dëgg dëgg kenn du ni zaydun kooku moom duñu ko wax amma su fekkoon ni nag maa ndaxte maa dafa yeyoo sadru kalaam moom waaye su fekkoon ni maa dafa dawlu ba yegal am nañu dawal lu daganal nga ni maa qaa'iman daama zaydun kooku am ñu dawal daganal loolu waaye am nañu ko tere faw kon nag bu kullun tere na sabqal xabari daama xabar ju jiitu daama tere na ko amma maa daama moom ittifaqan ñëpp ko tere ah yi kese ji na nga ni maa qaa iman daama e tam am nañu ko tere waaye nee na loolu ala saxiixi dagan kadaaka naka noonu leneen lu tere sabqu xabarin jiitu gu xabar di jiitu maama annaafiyata mii dàq waxal wa jahuulu alaysa sawaan aalimun wa jahuulu alaysa sawaan ndax du aji yam aalimun aalimun mooy lisimu laysa sawaan mooy xabaram nga ni sadrul bayt وجهول ها؟ للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم بادكار الموت ادكار ما يتذكر ما يفاتلك ادكر وادكر بعد أمة وادكر ادكارا ما مصدرا wa dakara jooju bi maanaa fàttaliku zakara moo doon cosaanam dañu ko tëgg iftaala taaw iftaala bu dikkee ci gannaaw daala ki daal dañu koy def dañu koy def sotti daal su ko defee loolu moo indi wa dakara seen waxal baytinum laa tiiba lil ayshi maa daamat منغظة منغصة لذاته بالدثار الموت والهرم لا طيب ديتك نيخ للعيش نيل دندو أدنى ما دامت فيك من صح منغصة دلو نخل لذاته بانيخم يا دي نخ بالدثار الموت تفاتلك بنيت كيفاتلك دي والهرم ينمغت تخنا كون دندو بدنيا فاو شاهد بي ما دامت منغصة لذاته ما دامت لذاته موي لسم منغصة دلني نخل كوكو موي خبر دي توسطة كذاك نكنون سبق خبر جيتو خبر جيتو ما ما نافية موي داق بوتي أما خبر كن دون قائما ما زال ولا قائما ما نافية ما متدام مصدر يضافية ما ينافيات نونو moo xam nag loola ci fiil joo xam ni e, naf yu bu charte la ci jëfam ni ki yant yi ak fiil boo xam ni sax naf yu bi du ci jëfam ni ki kaana kaana boo nee maa kaana mu jëf soo ko andiwul maa mu jëf waaye bu maa xasee dikk nag xabar ja du ko dawlu kenn du ne qaa iman maa kaana zaydun loolu duñ ko waaye nag mën nga ni maa qaa iman kaana zaydun wala maa kaana qaa iman zaydun maa mi daal maa naafiya moom du ko dawlu kon gannaaw du ko daylul nooy def faji biha andi ko matlu watan muy luñ topp ci moom de waaye laa taaliyatan du maa ji topp ci dara kooku tatmim la dégg wa man u sabti xabarin laysa ustufi wa man u sabti xabarin laysa ustufi wa zu tamaamin maa bira kooku leneen la wastufi wa tànn nañu nga xam ne boo ko déggee tànn nañu nangam xilaafa nga ca kat moo tax ñu tànn jenn wax de wastufi wa tànn nañu wax ja wax منع سبق خبر tere gu ñu tere jiitu xabar mu jiitu laysa laysa laysa ji kat mafoolu manu la manu mafoolu sabqi la wa wa manu sabqi xabarin tere gu ñu tere jiitu gu xabar jiitu laysa laysa mafoolu sabq loolu day ustufi kon man u mubtada la jumlay ustufi mooy xabaram pour nga dégg maanaam bayti wa man u sabqi xabarin tere gu ñu tere jiitu xabar laysa laysa nga ni ah mu ni ustufiya tànneef na ko ca xilaaf ba am nañu ni mënees na ne man laysa saydun ndax laysa xarafu dàqale niroo na ak ma waaye feendu dàqale niroo na ak ma waaye nag yëggul ci sa sadul kalaam loolu la ñooñu wax mu ni waaye day ah, tere ga daal la ñu tànn li shiddati shabahihi bi maa fi nafi looloo tax dafa niroog maa ci nafi bi lool kon daal la gën a ñu daganal nga ne qaa'iman laysa saydun léegi nag mu wax la ne mu xamal la ni yi léeg-léeg am na ci day nekk taam day nekk naaqis moo ci gën a bare ah, am na ci nag yoo xam ne daa iman naaqis lay doon wazu tamaamin boroomuk mat mooy bi nga fiilu taam mooy safaanu fiilu naaqis soo xamee ne naaqis mooy fiil boo xam ne maanaama du sotti الجفم لدن برافا لسم نسب خبر بيت كوكو ناقص لين كو فين البوخاني برافا فايل رك مدوي نكي ضرب زيدون كوكو تام لين كو موم لاني بروم تمام تي فين يي نك دي جف جفي كان ما موي لاغا خاني يكتفي دنا بيلو برف ان تي برافا مدوي دينغو كان دنا بيلو رفا ايتن وان تقول يا قوم قد كان المطر يعني فلست تحتاج لها إلى الخبر عندك وكم ويمانا حدثا وجدره كان أمنا سوكو كفري أمة الخبر يجد ست نونو ظلات أصبحت أمسا يبنون وفي القرآن الكريم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أمر الخبر واو فاعل تياري حين تمسون أي حين تدخلون في المساء وحين تصبحون أي حين تدخلون في الصباح أمر الخبر كن yooyu yooyu danañu def lu ci boro lu ci doon feelu taam nag mooy lu doy loo rafaa faayil yem ci ni ki misaal yooyu ma la wax ah wa maa siwaahu lu dul doy rafaa kooku naaqis la day fokk mu andi lu mu nasab ñu di ko xabar wa naqsu su ko defee naqsu nag manqué di aajo xabar faw xufiyat ah, xeñtu topp nañu ko ci ay fiil ci fatiha ناقص ليدون فو ليس ناقص ليدون فو ما زال ناقص ليدون فو دائما يوين يندي دون تام دينغا واينا يوين ني من دون تام ني كيما دون وخ فسبحان الله حين تمسون اكان مدم سي بنين اتي ولا يد العامل مأمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ولا يلي دسسك العامل عامل في فعل تسسد من معمول الخبر معمول خبر جا بوني كان زيد ضاربا لولو اللي في اللي اللي في خبرا خبر جنك أم مفعول معمول ضاربا كان أمرا كان زيد ضاربا أمرا أمرا جلي لني بسسك كان جي عامل جي كم دوني كان أمرا زيد daari ban loolu moom duñ ko bu la neexee nag nga ni kaana zaydun amran daariban wala boo nga ni kaana daariban amran zaydun nga xam dafa ànd ak amilam de nga xam ni ma bi dawlu na waaye li ko nasaba jiitu jëkk mu taq ca rek waaye nga daal di kaana taamaka akilan zaydun loolu doo ko wax kaana taamaka akilan zaydun xam nga taamaka mafoolu aakilan kooku du sët ak amin ah ñu ni faw mu ne xanaa bu dee ci ñaari gell waru nax yi nga xam ne ñoo moom kediili fu leen fu leen neex dugg te mooy maamul ma zaraf la wala jaar ak majuru kooku toujours dana ci dagan lu dul dagan ci yene mu ni a illaa ida zarfan ata aw xarfa jar illaa ida ata lu dul maamulu xabar ja dikk zarfan di zaraf ni ki kaana indaka zaydun jaalisan aw xarfa jar kaana fi daari amrun qaa'iman loolu moom mën na nekk ah, rek de ñu ni ko nag a ah, wëttuwul nag gis nañu ci waxu arab lii nga ni du dagankat gis nañu maamool mi maamoolul xabar sësëg aamil te du arfu jar du du jar du zarf ndax dégg nañu eh, dégg nga day dégg nga jariir faras daq di xasanteeg jariir ci seeni way ñaari shaayir lañu faras daq di xas famille jariir ni dañuy ñàkk fu la dañuy bu guddee ñu yum yummi mel na màggat ñuy dox di sàcc mu ne qanaafidu haddaajuuna xawla buyuutihim bima kaana iyaahum atiyatu awwada mu ni famille xanaa fi yi comme ay suññeel lañu suññeel guddi lay dox di rëbb lu mu lekk haddaaj wane ñu di way dukkat hadaj mooy doxin hadajaan mooy doxinu màggat mu néew doole moomu sëgg di def yu kumur kumur kumur mu di leen nara ay suññeel moom famille jarir mën a xasta rek ñuy haddaaj wane la ñu xawla biyutihim ci seen boori néeg yi loolu bi ma kaan bi ma bis ci sababu la nga xam kaana nekkoon na atiyatu Ah. awwada tamaloon ko iyaahum ñoom mu ni bi maa kaana iyaahum atiyatu awwada kaanaa ngoog atiyatu mooy lisimam awwada mooy xabaram jumlay awwada aywa iyaahum mafoolu xabar la maamoolu xabar léegi nag andi nañu ko mu sësëg kaana mu ni nag soo gisee lu mel noonu ci wayu arab bu mu tax nga defee sunu xaayida bii Eh, eh, dafa dafa eh, in xaramatil qaida laa laa bu mu tax nga defee qaida bi saxul dëgg-dëgg de sax na kooka moo kooka boo ko gisee taawil ba mooy ni amil gi dara doxul diggam ak lisimam waaye nag lisim ja day damir mustatir dafa da nga ni bi maa kaana ci la nga xam ne nekk namu huwa maanaam damiru sha'nu la bi maa ci la nga xam kaana nekk namu am na ngir li la nga xam ne am namu moo tax loola lan la ana nga ni aqiyatu aw wada iyaahu jumla jooju mooy xabar ja waaye lisim ji dara doxul diggam ak kaana dafa nekk damiru sha'nu loolu la ni wa mudmara sha'wis minin wi in waqa moohimu mastabaana annahum tana wan wi ay qaddir nattaleel ni yetu fii buñ ko waxee taqdir nattaleel mudmara sha'ni damiru sha'nu isman mu nekk lisim lisimu aamil ja na bu ca biir in waqa a loolu kañ la bu fekkee dafa tabbi ci waxi ara مهم ما لوي دفلو لغا خاني استبان لك برنا لني أنه امتنع دفترو تموي عامل جسسك معمول الخبر تدو ظرف دو حرف جر بو جسي آه، لولا دفلوني دفا, دفا أم ديدت قدر هناك ضمير شأن ضميرا مستترا في العامل فلا فلم يدخل بينه وبين الاسم شيء بيت وبما كان إياهم عطية أولا bima ci la nga xam ne kaana nekk na mu kaana dafa nëbb li si mam huwa damiru sha'nu la su ko defee ana xabar ji nag mooy jumla la léegi mooy atiyatu awada iyaahu wa qad tuzaadu kaana fi xashwin bokk na ci dégg nga xusuusiyaati kaana ba tey des na ko yokk moom baatu kaana fi xaswin ci diggante mooy bayna chey ay ni mutalazimayni diggante mubtada xabar diggante sifaak mawsuuf dégg nga euh, euh, diggante jaar ak majruur sax dégg nañu ko ci ñu dolli fa kaana bayna sifati wal mawsuuf man nga ni jaa rajulun kaana maanaam maratu bi rajulin kaana qaa'imin bidaari qawmin qawmin وجيران لنا كانوا كرامي وجيران كرام لنا بدك وجيران لنا كانوا كرا كانوا جزايد أنك نونو دقنت مبتدا خبر زيد كان قائم من قكوا لولو ممدقنا مطلقا في حشو بين حتى دقنت جار مجرور على كان المسومة العرابي عندي وكذا على كان البيت أو بيت سطر بيت على كان المسومة الإرابي آه، تسا تسامى ها أه؟ كان المسومة على المسومة الإرابي فسي يرافق فسي نار غور موي فسي عراب فسي عربي بيري مولا يخي عراب موي نار غور على على المسومة العراب تسامى دانيو كويندو على المسومة فسي نار غوري رفت يا العرب يداي نار مسومة فسي رفت والخيل المسومة تا آه، كوكو كون دولي نانيو كو تي حشو حشو موي بيرو دارا ياري في ورا تقو nga jël kana di duggal sen digënté kana ko jabo lolu ci xusus yaatam la ta han ah det لفظ المادي موي تبار مدار ام كاي نادر لا نادر لا ديغ نانيو كو دي واي لو نيو انت تكون ماجد النبيل اذا تهب شمال بليل ديغنت مبتدا خبر مو فتكون مدار لولو بري ول كانا بري دا ديغنت مبتدا خبر نيكي ما احسن زيدان بلا نخيري ما كان احسن زيدان أرى أم عمرو دمها قد تحدر بكاء على أمر وما كان أصبر أي ما أصبرها فدول ما مبتدلك ما تعجب يبو مبتدل في الجوجوم وخبرم ما كان أصبر أي ما أصبرها مداق ديغتو تبارا بكنت تخصوتي كان بتي لملني ويحذفونها ويبقون الخبر كان موم danañu ko xasaf te desal moog lisimam bàyyi fa xabar ga danañ ko xasaf desal xabar maanaam moog lisimam ah loolu am na fu muy bare lool nag وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر وذا ليت من حذف كان أجلس من بف خبر اشتهر سيونا برنا من أرب بعد إن تجناو إن ولو أغلو لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا أي ولو كان ذو البغي ملكا هذا كان الاسم ولا إن آه، دي آه، ما تفعل تجزى به إن خيرا وإن شرا إن خيرا وإن شرا أي إن كان العمل خيرا وبعد أن تعويض ما أنهرتك كمثل أما أنت برا فاقترب بوكنا خصوصياتي كان خصوصياتي كان يجنا ييني نيدك حذف بايك فلسم جا خبر جا تيب لم دون دف جف جا موم نفا ملني كان أنغفا لولو منجي أم سكو أنجيتو دنجا كوكو nit ñi danañu jël ma dindi ja remplacer fa ma su ko defee raf damir ja kaana doon la mu waroon a rafaa su fecce nekk damiru rafaa munfasil lil waaxid anta lay nekk ka misli amma anta barran faqtarib amma anta ngir sag nekk barran di ku yuwe faqtarib jegeñal ay faqtarib li an kunta barran waye nak sa mbax gi dong na tax ni day wax jege ci moo tax mu ni ama mu dawal ko li bururika faqat faqtarib bu dul mom do do jege amma anta ay asluhu li an kunta barran amma lam xarafu jar wi moom dagan na an an ak an bu leen xarafu jar duggee mutlaqan xarafu jar wo foko fek su la nexe hadaf ko du deug an kunta barran asluhu li an kunta nga dindi laam nga mu des an kunta an kunta ngir sag nekk ay li kaw barran an masdar ya wowa léegi nag nga daal dikk dindi kaana bàyyi fa damir ji mu faj ci doon anta mu des an anta fa kaana ne woon nga àbbi maa andi def fa muy bu dëgg ah. an an jëfa des nag daldi di jege ñeeg niin nuun ak miim ci sifa du dëgg ci maxraj bokkuñu maxraj nuun catal lamiñ la miim ñaari tuñ waaye dañoo bokk sifa ba tax ñoo fi gën bokk fokk dañu leen di li dañuy li daxaam nuun ci miim nga jël an li daxaam ci maa maa moom mu remplacé kaana muy am maa doora andi li si mi kaana ja ju facc ja anta am maa anta barran kon dégg nga da ngaa xadaf kaana bàyyi fi tey lisimam ak xabaram ci gannaaw an moom la ni wartuki ba toggoof na buy jëfandiku mooy taawidu ma anha remplacer ma mu remplacer anha remplacer kaana baada an ci gannaaw an fa misli qawlika amma anta barran faqtarib jegeñal amma anta barran ngir li nga nekk di ku baax asluhu li an kunta barran ñu dindi kaana jël maa def fa nga ni am maa anta barra di dafa amee an ci maa أبا خرافة أما أنت ذا نفر فإن قومي أبوخ أبا لم تاكلهم الضبع نعم naam Abbas ibnu Marra mu ni aba anta za nafarin fa inna qawmiya lam taakuluhum dabu abu xuraasata mun daala amma anta za nafarin ngir sag nekk di borom mbooloo bu mu tax nga defee ni ragal nanu la fa inna qawmiya ni ki sama famille lam taakulhum lekku leen toskareelu leen addabu bekoorum at dabu sanatul mujdiba at mu bekkoor la ñuy wax dabu dabu moo doon bukki waaye aram dana wax atum bekkoor dabu mu ne amma aba xurasata amma kunta nafarin fa inna qawmiya lam takulhum dabu bu fekkee da ngay borom mbooloo tax nga defee ne yaa ci ne moo na manit day samay bokk bekkoor jàpp leen ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم من ناكتم دي في خصوصيات كان لي مني وتحذف دنا حذفت نون نون من مضارع تفيل مضارع لكان منيال كان منجزم من جزم معنى وينك بالسكون وكنو بكان دي فعل جروم غخاني جسمم دون سكون حذف نون لي دون دو te it na fekk su bañ ca toppati kat su melee ni in yakunhu falan tusallata alayhi wa illaa yakunhu falaa xayra laka fi xadmi in yakunhu kaana juju jasame mu daari om kaana mu ñu jasame sukkoon la waaye nag ittisaalu damir moo tax mënuñu ni in yakkuhu dégg nga looloo ci xususiyaati kaana dañu nañu xasaf xarafu mujj wa noon ga bàyyi fa la ca des man nañ ko banoonu dara bañ caa jokk ni ki walam yakku min al musik wala takku walam akku walam nakku lépp dikk na ci alquran ci xarafi mu daaray lam takku dikk na ci lam yakku dikk na ci lam akku dikk na ci xanaa ndax lam nakku rek lam nakku dong day laa gisul ci alquran dégg nga ndànk ma na fekk sukkoon bañ caa jokk looloo tax lam yakun lilladina kenn euh, euh, du ko du dagan ñu dindi noon nga bu doon fudul arabit lam yakun irrajulu kenn du lam yakun rajulu loolu na xilaafan li yunus yunus naxwi bu mag ci waa basra nee nag ah loolu moom du teeñu xasab ko ñu ni ko luy sa shahid mu ni arab ba dafa dafa xool seetu ba di damu doon ku ñaaw muy damu ni su fekkee ñaaw naa it teewul jàmbaar laa joo xam ni màggay mu daldi ni ida lam takul miraatu abdat wasaamatan faqad abdatil miraatu jabhata baygan yunus moo sadd baytu woowu ni déet loolu moom d'accorduma ci sart boobu ngeen ni bala ñoo mën a dagg nuun ga day fekk sukkoon bañ ca jokku euh, donte sukkoonu alif ak laam mu loolu moom d'accorduma ci xanaa bu dee sukkoonu su dee waaw bu ca sukkoon waaw waaw maanaam bu ca bu ca bu jokkoon ci sukkoon waaw ni ki lam yakunil ladina ah waaye foofu yoonus nee na lu mel noonu teewul noonu nga mënees ko xalam ni ki ida lam takul miraatu waxul ni ida lam takunil miraatu xanaa ndax lam ji dafa jasam takoonu ida lam takul miraatu ah kon bokk loolu ci xusuusiyaat yi la noonu mu daari on kaana bu fekkee dañuy mu daari omala te dañ ko jasam ti jasam ga di sukkoon nag te al bañ sukkoon bañ caa toppaat la nax wi yoona yi sart gannaaw yoonul kon tuxdafu nuunun min mudaari in li kaana mun jësi min bi sukkooni wa huwa loolu nag xasfun xadaf la goo xam na mal tusima taqoowuñu ko de bal huwa jaaizun laa waajibun لم يكن لدينا لولت قراءة الشاذ قراءة الشاذ آه، موم موي قراءة بو بوكلتي عشر قراءات آه، عندما يفك دون لم بنافع وابن كثير ببني وخلف يعقوب إن انضما لهم مع أبي جعفر العشرة هم léegi fukk يو fukki قراءات يو beneen بدك سين seen شاذ له سيبو صحابيو كجان لكي قراءة ابن مسعود إذا ناديت مانا للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله لولو تشاذله بمتواتر دار آه. إن يكنه فلن تسلط عليه فكب ابن الصياد يهود لو أنت مدينة بنك يهود ببنوة ba mu siiw ni mooy dajjaal ba Omar dem ni yonente ma ko rey ndew yonente ni ko euh, in yakunhu su fekkee mooma falan tusallata alayhi yàlla du la may doole ci nga mën koo rey mukk nda ci dogalu yàlla ni dana dikk aaxiru zaman di sànq nit ñi te kon doo mën fexe ba rey ko ci diggante bi wa illaa yakunhu fala xayra laka fi qatli su ko doonul man ay yow loo wuti moom bu dee mooma yàlla du la may doole nga rey ko su dul mooma যদি করে মুইখানে আমুলো চিও তাই waaw bu dee damira ca jokk in yakkuhu in yakkunhu damira ca jokk bu ca al jokkoo nag la yoonus moom ni e, kooku d'accorduma ci ndax dégg nañu